munoon naa lim yeneen ak yeneen ak yeneen waaye dama koy dakk fii pour wax rek ni ñun suñu gis-gis ci diine du discuss boo xam ne da ngay instrumentaliser diine dangay ngay essayer jëfandikoo diine di ko jëriñoo te gëmoo ci dara te loo gëmul nag munoo ko munoo ko def nawle am na nag lu xew ci réew mi mooy yàgg na am sax waaye fan yi dafa mel ni dañoo jëfóorati mooy nee nañu dafa am parti boo xam ne ñu koy wax Pastef dafa di parti boo xam ne dafa contre diine ndax koo ne dafa contre tarixa wala dafa contre mag ñi da nga ko ne dafa contre diine nee ko rek da nga contre islam bu la neexee sax nga ne ko murtat nga te li ma ci gën a yéem ñiy wër di ko wax ñi wër di ko wax koo ci ne woon lan mooy sa relation diine koo ci ne woon taril ma xaaju suuf bi waxuma waxuma xisib waxuma nis waxuma rubu waaye dama ne koo ci ne woon taril ma dig diggante euh, euh, alxaaria ba ci suuf boo moytul jafe-jafe am mooy bëggee nekk mooy li nga xam ne saaga dañu suñu yonent xas suñu yonent wax lu ci dul loolu ba nattu am ci am am yow nga taal sa avion dem ne dem wala ni yaay ñoo ñuy wax loolu mooy ñi nga xam ni ñooy dem toog ca bitim réew tubaab yi ne lii nga xam ne mooy borom ñaari tur yi il faut ngeen daganal ko ñu ne leen déedéet parce que suñu peuple pareegul da nga ñuy may ñu préparé la mais ñu du am de dañu ne notre société n'est encore prête loolu mooy may nañu ñu waajal ko. kenn ci ñoom ñemewu taxaw ne lii du fi amee waaye sax dama koy criminaliser parce que du yoon ñooñee tey ñooy wër foog ni nag mën nañu nax suñuy kilifa diine kilifa diine yi gën a xam li xew actuellement wëlul kilifa diine yi daañu la déglu nag dana la jox. cër bi ñu la war a jox ak waru bi ñu la war a jox parce que nga doon moo tax waaye ku wax foog ni wax nga ba wër ko ba wër leen yaa ngi nax sa bopp de ndax yàlla may na leen basira may na leen xikma may na leen loo xam ne bu ñu jàkkaarloo ni toog moom xool ko wax ko déglu ko dañu xam kii ndax nit la wala nit moo tax ñun loolu yëngaluñu waaye yeeg li ma bëgg a wax mooy ñun Sénégal waruñoo nangu ku ñu féewale Sénégal réew la boo xam ne dafa am nu bindoo mag ñi defee ko noonu nag ay gëm-gëm a ngi fi ci ay diggante ay diine waaye ay pas-pas am na ci biir diine yi waxu ngir waxu masala waxu tarixa yàgg na fi waaye teewul kenn ku ne danga nangul sa moroom li mu nekk ak li mu gëm ñu seet nag li ñu boole te loolu ëpp téeméeri junni yoon ñu ànd ci loola looloo musa am te nag sengoor ñëw na fi nekk président di katolik musul yëngal loolu ñaar ñu tegu ci moom di ay jullit musuñoo yëngal loolu waaye fukki at ak benn yi ñu wees andi nañ fi waxu diine andi fi waxu waaso te ci Macky Sall la amee te dara nag waxul warul ludul bëgg mooy ci nguur ci loo xam ne du yoon mane nag loolu ku xamul diine moo foog ni mun na xoolal li ci saal bi lépp a ngi fi Sénégal yépp mi ngi fii ci biir saal bi ci façon gis-gis bu ne loolu mooy Sénégal te dara duñu ko yàqal dafa am loo xam ne du sax jikko jullit te nii la yàgg naxee nag jullit ñi bi fi yonent alayhi salaam génnee la ñu ndax jullit ñi ba créer fracture ñu ne ñii ñooy sunni ñii ñooy chia ñu commencé nag di xeexoo seen biir ñuy dox dox dox ba ci biir ñu ne biir kenn ku nekk il faut mu am ay kuréel loolu yépp ay yoon la pour jëm ci yàlla waaye fi mu bonee mooy noon bi day jaar ci gannaaw lii nga xam ne richesse la waroon doon ci ñun richesse waroon doon ci ñun ndax ni mu doonee ci xeet yi noonu la doonee ci diine gi ndax yàlla bu ko sooboon ñun ñépp dañuy bokk melo bokk gis-gis bokk gëm-gëm